citoyen trahi mérite ce qui arrive aujourd'hui wor dafa baaxul mu ne ni dañee na wor ñett ñoo dajee sëñ Moustapha Sy parteem Sonko parteem Khalifa parteem ñu ñoom ñu def lu leen neex yeneen parti alliés yëpp dont Mansour Sy Djamil et les autres Cheikh Tidiane Gueye Fatou Blondin Diop Moustapha Maba Guirassy Cheikh Bamba Dièye même Dame Mbodj ils l'ont trahi et Sogor dire moi je pensais que Dame Mbodj était investi bëgg a daw res xaw ki may naafeq et Dame Mbodj il fait pas de politique ah et il fait la politique ces gens-là tous c'est des c'est une association de malfaiteurs Yewwi est une association de malfaiteurs il tout là-dedans des menteurs des criminels des terroristes des djihadistes il tout dans Yewwi cocktail explosif même l'imam Ndaw de Kaolack jugé pour terrorisme soutient Yewwi et Ousmane Sonko ce qui se ressemble s'assemble c'est le refuge des terroristes des djihadistes des rebelles des criminels de de de de vraiment une faune de malfaiteurs donc le cas Dakar mais Barthélémy Dias moi j'ai le code électoral ici il va compétir il n'a pas le droit d'être député parce que toute liste qui viole la parité est irrecevable La liste de Dakar a violé la parité. Même si on vous permet de faire des correctifs, de corriger, on ne vous permet pas de revenir sur la violation de la parité. Moi, j'ai été à des élections deux fois. J'ai payé une caution. Je suis allé en en tant que membre de Bédon. J'ai fait ma propre liste parallèle pour être député Piliforès comme Sonko du reste il est actuellement député Piliforès au moment où je vous parle Sonko est un député Piliforès ku ko wax dee nag ñëpp a ko tapet mais moi lorsque j'ai été élu député Piliforès quand je parlais on me dit oh yow tu es tu es mais lui député Piliforès personne n'ose en parler on dit qu'il trop fort dafa am ñaari nit. présidentielle troisième ça ne veut rien dire surtout que comme on dit le bonheur des uns fait le malheur des autres si on avait laissé Khalifa Sall et Karim de compétir Sonko aurait eu les mêmes résultats c'est-à-dire 0,000 pour cent on a reporté il y a eu un de voix sur Sonko et il est devenu troisième c'est ça et eh, il veut tromper l'opinion l'opinion en disant man dama am doole kan la celui qui disait qu'il était contre le système et qu'il n'allait pas travailler avec les gens du système il travaille avec Moussa Diop qui quitte la paire Khalifa Sall du PS de Senghor à Ziguinchor Abdou Sané c'était le griot de Karim Wade à l'Assemblée nationale on était tous députés Celui qui venait à l'Assemblée pour chanter Karim Wade, il fallait voir Abdou Saré. Il est devenu coordinateur de PASTEF à Ziguinchor. Ancien tàggkat di sabaral di riti rek Karim Wade Assemblée nationale. te l'adjoint même de Doudou Wade comme vice-président du groupe parlementaire Sopi. C'est celui-là qui est le coordinateur billahi du PASTEF à Ziguinchor. Abdou Sané, ancien député. Un produit du système. Ancien vice-président du conseil euh, de, de, du groupe parlementaire Sopi dirigé par Doudou Wade. Il était à l'Assemblée. Il est candidat anti-système. mais Sonko kan la yeb xale yeewu leen dof bi système ànduma ak on doit fusiller on doit fusiller les présidents Wade Abdou Diouf c'est des criminels ils ont sacrifié ce pays aujourd'hui il va avec wàllu de Ablaye Wade waaye mais ku kii ku il nous prend pour des idiots pour des demeurés lui seul est intelligent nous sommes tous idiots pour lui waaye gars yi na yeewu waay kii xanaa daf ñoo liggéey nag xale yi moom ñu bari da liggéey laa foog wala seen day moo liggéeyul dara dara la seen day liggéeyul ñenn ñi saaga rek bon j'ai dit l'autre jour ici que benn yaay benn ndey bëggul jur doom boo xam ne lu muy liggéey ñu ne saaga nekkul ingénieur nekkul journaliste nekkul docteur nekkul avocat nekkul commerçant lu mu nekk saagakati Ousmane Sonko man naa Ousmane Tunkara xoole ma doomaraam jooju xoole Assane Diouf secrétaire la que j'ai hébergé chez moi aux Almadies maa ko récupéré de l'avion bi mu ñëwee ak dig ma xeex ba dig bàyyi ko actuellement il part tout le temps à m'insulter les habits qu'il portés pendant deux ans sa sont les habits de Me El Hadji Diouf basin jean super 100 polo chemise chaussure teeloon na ma ko l'autre jour teeloon euh, na ma ko man fu ma dëkk man wal faj laa dëkk loolu mooy delloo yéen yéen ñàkk fay de kuy delloo gi day dama ci këram ko am li nga ma joxoon waaye ñëw wal faj di indi ëmb ne yére yi dama joxoon yére yi màgget waa yére yi boo solee deux ba mu ñëwee ëpp na léegi ñaata waaye léegi ma trois ans presque avant deux mille deux bi di teel il me dit ça Assane Diouf là lorsqu'il est venu amul fu mu narawee fu mu tëdd il allait SDF sans domicile fixe son grand frère me demande de l'héberger je l'amène chez moi je l'installe nekkete yoo des trucs yamba il ne faisait que fumer du chanvre indien je le savais pas Ce sont mes enfants qui m'ont dit, mais Hassan Amare. Quand les bonnes là viennent pour nettoyer la chambre, oh l'odeur Et puis même les, les roussettes là, qui Et il a avoué au niveau de, de, de Valfadjiri, ou TV. C'est un modèle pour les jeunes. Ce sont ces gens-là qui sont à Wallou et à Yewi. Ouais, Moi, je veux des jeunes pétris de qualité, des jeunes bien formés, des enfants éduqués demain pour assurer la relève. Nous avons besoin de vous, jeunesse de mon pays. Nous avons besoin de jeunes bien formés, des jeunes conscients pour prendre en charge les destinées de ce pays. Mais pas des jeunes manipulés, embrigadés par des voyous, des malfaiteurs tapis dans l'ombre.